Euh, jërëjëf euh, jërëjëf euh, <laughs> Aliou Mame Bambi Kébé Ndiouga Aliou Ndiakhate ak Sang Mbaye loo indi tey. waa amaat mbégte bu rëy rëy ci nee naa la ci émission bu mag bi lee dañuy yàkkamti dimanche jot ba ñu toog daal di pelloo ndax réew mi dañuy déglu. di nuyu nag kilifa diine boo xamante ne bëggul ko tudd turam mais nee na mu ngi seetaan. di ñaanal jommet ci kaw ci kanam man xaw ma sax fan la jëlee sama numéro waaye daal yóbbante àq la te mu ngi seetaan ne ci réew mi nekk digg ndakaaru gi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di wax yokkal ñaani euh, mbaay xam nga ñëwati nañ ci lu doy waar naam ñëwoon nañ ci mais dañ ciy yowaat ndax nee naa la ko yokku cere faw nga dolli ñeex mm-hmm. te réew mi dafa yëngu réew mi waxul dëgg actualité lañ wax ndax ku nekk xam ne li xew barki démb euh, ci euh, taximan bi ak ki nga xamante ne mooy dawalkatu moto trois roues yi. Mhm. ak ki cag-cag mun naa ne taxi yeeg ñëpp ak car concurrence keeg bu jég yàgg na. Euh, ñàkk xajalante gi yàgg na mhm. ñàkk muñalante gi yàgg na ndax li ma lay wax rek nee naa la tali bi xatul xol yi ñoo xat rawatina bu ñu muñalantewul mañalantewul man damay dem ba yàgg sa damay tiit parce que bu njëkk ba da nga naan gis naam yàgguñu dawal gaa euh, ci code lañ daan waxeeg ak yow mais léegi da ngay gis da ngay signaler dara sax da ngay gis da ngay signaler dara sax nit ki du gis la nga signaler. Mhm. il faut que nga génne sa loxo wala nga ne ko hoo wala nga koy saaga. parce que tey circulation bi ko ci biti loxo saaga nga ko. Mhm. donc kuje gi doy na waar ñàkk mu ñu lante gi métti na euh, ci kuje gi ci bërëm moto yi cag-cag yeeg trois yu yi ci yokk. te nga xam ne pratiquement ci suñu mbokk pël yi dañ koy gën a gis pour ñu leeral dañuy dox régi nank xool élément la la ñu indi maaleykum salaam. jàpp Guèye. depuis lors ñu ñëwee ba léegi. taximaan yi may ñu jàmm may ñu jàmm may ñu salaam. comme li may wax rek ñun. ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal quand te ñun ay jeunes dañ dañuy wut comme ñoom ñoom dañuy xëy ñun ñii dañoo yor kër fii ñi fi nekk yëpp dañoo yor kër si lañ fas yéene suturaw ñoom it dañoo yor kër kon nañ jàpp ne tali bi ñun ak ñoom la buñ ñu yàqal ñun it buñ leen yàqal parce que mënuñu nekk fii nekk ay jeunes di wut kenn ku ne di wut ñuy xëccoo di xiiroo di ŋaayoo munul nekk ñun ay nit lañ nañ jàpp kenn ku ne na jàppee mor na jàpp boppam comme moromam rek comme li may wax rek euh, tali moom tali la du ñàkk laalante du ñàkk xoosante du ñàkk yenn yi mais peut ndogal la lu waroon am la am na quand même mais ñoo ngi masawu bu baax si taximan bi bi nga xam ne nii moom moo si wàññeeku yàlla xare ko àjjana mais du lu gënal nit ñi quand même ñu nekk fii di xuloo di xeex ngir transport ngir wutab dërëm am na ñoo xam ne nii tey boo leen doon fay milliard du ñu yéeg si càq-càq waaye am na ñoo xam ne nii bu ñu waxaalee taximan prix bi abordable ñu mun a fay jakarta dem parce que dëkk bi évolution lañu ñu soxla ñun ñii dañoo bàyyi suñu kër munuñu toog noonu di xool ban tax amul benn taximan bu nangu tey war bu deux heures jotee nga woo benn cag-cag man ne ko am demal gontu amul mais ñun lii ñu am ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp xusal ko suñu bopp bu am ko kon nañu nañu fii xalante tali bi ñun ñëpp ñu bokk ko kenn ku ne lekk sa wërsëg te bu ilaa yow mi diin amul kenn ku mun a lekk wërsëgu moromam kenn ku ne li nga war a am yàlla bind na ko kon nañu fii xalante xol yi ñun ñoo ngi fii gis nga fii ni ñu bare ni ñu tooge mais fii boo ngoon kenn ku ne li nga war a am di nga ko yóbbu sa kër nañu fii xal xol yi waaw ak baay mu jeex tàkk maa lay nuyu salaamaaleykum Mbaye Thiaw sama waay di la siyaare di siyaare Walfadjri yëpp di masaw bépp taximaan tey ñaawlu loolu am suñu diggante muy entre càq-càq yeeg taximaan yi parce que lu mën a ñàkk la ndaxte xañ na liggéey bee demee noonu ñoom jàpp nañ ne xaj na taximaan yi dañu nekk seen ennemi wala dara wala taximaan yi jàpp ne moto yi te terewul kenn ku ci nekk war na mën a liggéey liggéeyam te du yàqal kenn est-ce ñun ñaar ñëpp ku ci xëy ku nekk bokkuñu fuñ jëm kii jël taxi bokkewul ak kii jël ceg-ceg ki nekk ceg-cegam bokkewul ak taximaan bi dara xaj na ay réeroo la rek ñu mënul ñàkk ak saytaane parce que saytaane yi dafa bari doole mais nag ñi ngi masawu taximaan yëpp tey ñaawlu it jëf daal non jotewuñu dara parce na nag ceg bi ak taximaan bi ku ci nekk war na mën a am jàpp xam nga daal maanaam li ma la wax rek ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa defee ne moroomam dafa jàppe moroomam ennemi mais taximaan bi tey ji yow ki taxaw jël taxi kooku du jël ceg-ceg ki am soxla it yaakamti na jël ceg-ceg ñun ñaar ñëpp war nañ mën a nekk ku nekk dem te kenn du yàqal sa moroom parce que dëkk bi moo toll foofu xaj na xat na ñenn ñi seen yitte xaj na ceg-ceg lañ ko mën a dox ñenn ñi taxi moo leen arrangé mais kenn yàqalul dara ku ne dina jot wërsëgam asalaamaaleykum Euh, Ibrahima Diawo bon loolu de yaakaar naa ni euh, comme ñoom ñëpp dañuy liggéey donc yaakaar naa ni seen dëkkuwaay waroon na doon dëkkuwaay bu rafet voilà ñu dëkk nu mu gën a rafetee si harmonie parce que ku nekk si ñoom sa liggéey ngay def ba pare ku nekk si ñoom boo respecté sa morom rek normalement problème warto am quoi léegi bu fekkee ñu ngi si talib di jiiroo ay client ak wala di xëccoo ay place fii laa war a taxaw waroo fi taxaw ak loolu jalousie a woowee parce que bu fekkee yaa ngi def sa liggéey keneen mi problème conscience la aussi voilà dañoo war a xam ne ku nekk sa wërsëg li la yàlla may loolu rek mën a am quoi donc mën nga fi taxaw suba ba ngoon doo am dara bu dee yàlla yàlla programme boobu nga am dara te mën nga am aussi li nga bëgg si jàmm bu fekkee yaa ngi dox yaa ngi doxalee ni mu gën a rafetee li ngay sa liggéey d' donc boo taxawee benn place nit ñëw taxaw lépp si waxtaan lañ koy réglé euh, d' mais quelque fois muy yàkkamti si yoo xam ne ñu ngi liggéey teg seen liggéey si yoon mais dafa am ñoo xam ne toujours en course contre le temps en course contre leur leur destin même parce que bu fekkee li nga war a gagner da nga bëgg a coûte que coûte aller au de tout ça parfois da def loo xam ne waroo ko def parce que parfois da gis tali taximan wala wala borom càq-càq war laa may yow piéton bi pour nga jéggi sax mais muy njëkkalante ak yow te taximan wala borom càq-càq pas possible bu nu nekk foofu lañu daal di rafet na tubaarkàlla waaye di ñëw tamit ci avant dernière personne bi ki wax ne kenn ku ci nekk sa wërsëg ngay ku ci nekk bokkook sa moro wërsëg ku li nga xëy rek li nga bëy rek ngay daal di góob kon na rafet donc taximan bi am na a yegg foo xam ne cag-cag mënu faa yegg trois roues bi na zalika waaye di profité waale di jaale taximan yi yëpp di jaal àddina yëpp di masawu ki dem fa mu jëm gënal ko fii yàlla jégal ko ay bàkkaaram itam doy na waar éducation de base dañ ko war a dolloo si ndax nee naa ne ku ñàkk éducation de base perd nga sa valeur ñàkk ñàkk nga lépp parce que boo amul yar mënoo nekk chauffeur boo mënul muñ mënoo tolérance mënoo nekk chauffeur muy taximan bi woowu du trois roues bi woowu du cag-cag bi donc yéen concurrence bi ak ku jege ci taxi bi la woon ak cag-cag bi léegi trois roues yi lëmbe na Dakar yokk nañ fi tubaarkaala yaatu leen ku nekk lekk wërsëgam ndax dégg naa tamit yéen gën a yombale donc di di sama rakk bopp ji réew mi na tiit naa na ma ko jaabu tey li nga àndee te amati na solo lool baam bi di la wax ne baal ma baal naa yàlla yàlla boole baal wax bi la ma ca waxoon rek laa cay waxaat mm-hmm. gis nga ku nekk sa wërsëg ak foo mm-hmm. munti ne ala kulli àll di nga ko jot te ñoom nee naa la xol yi xatul mm-hmm. kii tali bi xatul xol yee xat maanaam tali bi ñu bokk nañ comprendre rek xam ne ku nekk la nga yóbbu ca kër ga mhm. moom ngay wut tey li ci li li ci bëri booy xool borom jagartaa yi mhm. ñi nga xam ñoo jël cag-cag mhm. ay xale yu jàng ba yor seen i diplôme lañ mais dëkk bi amul liggéey dëgg la koo ci gis mu am benn moto bi jar deux cent wala trois cent mille mais bu ko amee loo xam ne war na cee mun a dem liggéey chaque jour mu ci dimbale yaayam wala du ci dimbale jabaram wala ay doomam mais da koy def taximan bi tam pareil donc pour ma ñoom ñëpp ku ci nekk ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo bokk li nga xam moo leen yëkkati. Mm-hmm. donc nañ comprendre te xam ne ku nekk la nga war a am. Mm-hmm. da nga koy am te ku ne dafa am point fort am. Mm-hmm. gis nga tey boo amee soxla nga bugg koo yóbbante wala nga am yóbbante boo xam ne da nga ko war a jox xalil xalil nekk ba mbuur wala xalil nekk ba géejawaay gi mais cag-cag bi moo ci gën a gaaw mais tey ji doo sañ sa ba jekk dugg si taxi kon buñ nee wàllum client taxi yee ko moom maanaam nga arrêté nit yéeg ci taxi dem mhm. boobu ñoom ñoo ko moom mhm. tey euh, sukaa mbay mii tey bu amee yóbbante tamit jox ko cag-cagam moom ñoom cag-cag moo moo fooree foofu mhm. donc pour man ku nekk am na foo xam ne yaa ko gën a mënee sa morom mais nañ ci jéem a jàppandeku ci loolu te bañ a siis sa morom tey taximaan bi bu siisee taxi borom jagarta bi ndax yóbbante dama naan est-ce que sax kooku nit la mais yow kii moo la gën a gaaw nangul ko ko mhm. tey client bi nga xam ne du nangoo yeg jakarta mhm. yaay yaa am po foofu noonu ay point mhm. nangul ko loolu moom tam mu nangul loolu ngeen ànd dem mais bu da ngay gis taximan boo xam ne ci tali bi day jéem a commencé borom jakarta wala borom jakarta bi gën ko gën koo li di ko jéem a yaa ma gën a xam daal mais pour man lu mën a nekk xam ne ñoom ñëpp ay frère lañ te nekk la tax a jóg mooy dimbal say mbokk nañ comprendre ante te yaatal xol te xam ne tali bi xatul xol nañ comprendre yaatalante daal di jaare rek ndax réew mi yëngu la damaa tiit waaye tamit cag-cag neex na te gaaw de tubaarkàlla cag-cag rakin cag ci yóbbante trois roues man moom da nga yëg da nga yëg ah, cag-cag euh, euh, nga wax sànq rek maam bam bi mm-hmm. euh, li nga ni xol yi ni tali bi yaa xatul ah. xol yi ñoo mm-hmm. effectivement xoola imaginel tey ki nga xam ne rek moom moo rey borom ceg-ceg bi moom borom bi borom ceg bi du moo rey mm-hmm. que ah, ndax lan dafa lan moo li indi loolu lépp saytaane mu ngi ci biir. ba pare moo njëkk a door kii fay. voilà ba pare loolu lépp say ba pare loolu lépp baam bi. saytaane moo nekk ci biir. ndax bu ma soxlaa ki nga xam ne rek moom moo di didi. Mhm. am lu ma soxla këram. Mhm. taxi mënuma ko lijjantil. Mhm. mënumaa jël taxi ni ko demal nga lii di ko fay ay xaas bu bari mhm. bu dee ceg-ceg bu dee 2000 rek nga jógee Dakar mhm. ñëw indi la li nga soxla te doo ci am benn inconvénient mhm. donc li nga wax rek moom moo fi ne xol yi kii bi tali yàlla te wax yàlla na yàlla sàmm rek te sàmm ñi nga mooy jakarta man ndax ñoom ñaar lépp ñoo fi ne bu mu may indi taxi may indi mais bu ma soxlaa dara <laughs> dama <laughs> ça va bu yaatuwaay mun maa yëg jakartaa di mu may indi bu du xam nga tey kon pone bi du day day mm. toj donc damay jël taxi mais bu ma soxlaa dem galerie wala ma soxla ñëw ci li nga xam ne moom moo di sa tailleur sa sa atelier damay yónni ceg ceg nga jox ma vice versa rek da ngay soxla kii soxla kii kon na xol yi na xol yi leer mm-hmm. voilà ñu muñu lan de parce que dafa am ñoo xam tamit yàlla ma yàlla baal dañoo dee dox ndax dëkk bi aaxirun zaman lañ nekk mu mujjum jamono dafa am ñoo xam ne moo tax gis nga fitna ak coow aussi tamit ñu bàyyi ko xel jaru ko parce dafa am ñoo xam dañoo dee di dox da nga leen leen raar rek ñu repp ndax seen loxo moo lañ naan géwalum jiñ ci xare xeeb ko xooman la nag la réew mi yëngu na oustaz fitna mm-hmm. nan la ci jël Adja Bambi euh, xanaa rek euh, tëgg ko rek ci benn wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi daf ñu jàngal son yi bu ni ala addulukum ala shay'in mm-hmm. ida faxaltumuhu taxaabatum mm-hmm. ndax duma leen teg ci yoon boo xam ne bu ngeen ci tegee tegoo ku ci gis sa morom day am yërmande ci moom ñu ni ko lan la yónni bi ne ni fexee leen ba seen diggante yi na ngeen ci ñaan jàmm seen diggante yi ni ngeen ci ñaan jàmm di ci dox jàmm barki démb rek àjjuma euh, ay côté 10 heures yooyu avant bi ma jeex bi ma jeexalee bi may waaj a tàmbali si pour def émission ci rajo bi gis naa benn borom cag-cag ak benn oto waa ji dafa dafa damm verre bi carrément ma gis borom cag-cag bi deful benn action xuloowul deful benn réaction waa ji fi mu toog fa la toog ci kanam après chauffeur bi moo mujj génn ñëw waxtaan ak moom ma gis ne ñoom ñaar kenn newu fa de communiqué nañu waxtaan ba jàmm mm, donte la waa ji toj na mm. veeru oto veeru ca kiiw cag-cag bi affaire bi communication rek la te ñu ubbi xol yi mm-hmm. yaatalante Serigne fàllu Mbacké leer na leeral na mm-hmm. tali naka lañ ci war a nekkee mm-hmm. yonent bi wax na ni tafa tafasaxu fil majalis dee leen yaatalante ci jotaay gis nga béréb bii ñu toog ñii di def jomme gii nii léegi léegi léegi su ma dépassé woon sukaa wax ko lu ma ko war ta wax rek léegi mu xat ci jotaay léegi léegi mu xat da lay mbéj léegi léegi mu xat non du ma sax waaye day xat ci jotaay bi léegi léegi bu ma waxoon xale lu ma ko war wax dépassé ko léegi léegi mu xat kon problème mooy nañuy wax jàmm ci sunu làmmiñ yii di yéenante jàmm ci tali yi di ko yéenante ak fu mu mën a doon taximaan beeg Eh, attention naa la benn affaire. mbaa yëg nga ni xaalisu taximaan bis bu ko xaalisu cag-cag bis bu ko ak taximaan taximaan lekkee. Hmm. yàlla da koy feebarloo. ah lu tax maa wax loolu. ndax lan fu garaaw lay waxee ak yow. parce que du ah. bépp xaalis boo xam ne yow taximaan nga. Ah. cag-cag bi moo ko moom. waaw nga fexe fexe boo maroode ko. waaw lekk xaalisu cag-cag bi. Ah. wala camion bi. taximaan bi moom ko nga fexe fexe ba lekk ko. wala ñu séq liggéey séq mbir. ñoo am lu ñu ca war a nga war ma cee jox sama àq joxoo ma ko yàlla day bàyyi ba nga war a lekk àq ba nga moom mu teg la benn feebar boo xam ni par force dinañ la yóbbu hôpital gis nga bu ñu dajalee xaalis ba nga lekkoon ciy jënd ordonnance ngay suñu ciy jënd ordonnance laa la wax baam bi lekk te warul dem ci yow këlee ko moom Pape moom. bu ñu la ciy jëndal ordonnance ordonnance la ciy jëndal. nga wér xaalis ba lekkatoo ko jariñatoo ko te lor nga boroom cag-cag ba. nit ñi nañuy def lu diinewu mhm. nañuy am jikkoy jullit mhm. te ku ci nekk am yéene bu baax ci sa morom am jikkoy eh, jullit te ku ci nekk am yéene bu rafet ci moroom ak di ko ñaan tamit damay ñëwaat ci sëñ Fallou tuuti Mbacke Balla mhm. yal nañu ko yàlla fayal radiyallahu taala anhu daan na wax itam booy dem ci yoon da ngay xaar ba xaat àgg ay waay sëkk c'est parce que ku pare ba tey waa di leen joxe directement. parce que man bi ay bi wax dañ ko. am na sëñ Fallou may ma sëñ Fallou wax ci yow non sëñ Fallou. Ah, ci nettali bi nopp nopp nekk. ku ba bu gaa di commentaire doo ko demaat ci keneen. Ah. yow xam nga noppam ak borom tubaarkàlla. Ah. Euh, te xam nga. Mm. son yi xam naa xale mi nga xam ne barki démb la. ak moom mi nga xam ne barkaati démb la tubaarkàlla ñoom ñoo ma si gën a xam ndax dégg naa ci nettali bi nee nañ bu daan tukki ba ànd ak chauffeur am danaan day gaare tuuti danaan ko xaaral ba xaat àgg bu ñu ko mbàkkee la waral loolu mu ne ndax jóge na fi léegi àgg na xaat loolu la ñuy bañ kon maanaam euh, di dal nànk tam ak di daw da ciy baax sooy bu tin naa réew mi nga du la tere àgg fa nga jëm jaajëf Bambi dafa am euh, ku amoon wér di xel mm-hmm. ñu ni daa am mbokkam mu faatu bi ñëpp dajee ñu naan lu ko faat mu ni wóoluwuma ci yàlla mm. mu ni ci yàlla maanaam ki faatu moom daal wóoluwu ci yàlla ah, waaye lii di xew ak faatu gu bari gii wóoluwuma ci suñu état yi am na benn président bu ñu doon wax euh, yaayaa Jammeh uh-huh. diiran la muy nekk ca bopp euh, réew mooma ah man de mosuma dégg ko fa rey nit da daan toog di leen ko wax ni leen mm-hmm. ku dem lekk ba suur mm-hmm. naan ba màndi di dof dof la dajeek nit defu la dara nga rey ko bu ma la jàppee dootoo ko nettali gaa yi respecté nañ ko ci durant la mu fa jógee kenn rayu fii nag dafa mel ni euh, ray gi naam am na ndogal la waaye ay sanction dadul am nit day rey nit léegi dugg kaso balaa am ñetti at mm. ñeenti at waa ji rombaat la ak mm. oto nit doomam day ñëw rey sa doom mm-hmm. mu ëpp lay fan yi paas gis nañ fi ku ku biiraloon ab xale bu jigéen rey ko mm. xale bu góor ba nee nañ bàyyi nañ ko mu ñibbi waaw yooyu di am na ci réew mi bu bare day dem ba rey ginaar gi ak rey nit ki ñooyam ci yow tali bi bari na la fi am reewande ci la bokk xamadi ñàkk jox nit ñi cër ak xam ni rey boo reyee dara du la ci fekk mooy am mais bu fekkoon ko rey ñu yóbbuwaat la dem wane la RTS ñëpp kii ñun la tàppit rey la mhm. ana nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wala anfa bil anfa bu fekkoon dañ dañ ko dañ koo jëloon kon yii di xew du am ci réew mi kon yii di am du am mais dañoo bàyyi banaliser affaire yi ku jot koo waxal daal di génne suuc ni ko tay ma rey la parce que xam nga la la ciy fekk mhm. mais bu dee lu jëm ci wàllu euh, tali bi ak euh, concurrence bi am Euh, man dama jàpp ni euh, waxtaane woon nañ ko fii alaaji amoon na benn kii bu mu joxee woon benn benn benn benn solution bu mu joxe woon muy nañu organiser mbir yi euh, cag-cag bi li mu war a def na ko na ci yem su kaa wax na ko léegi su kaa mënta jël cag-cag liggéey si mais mën naa jël taxi liggéey si taxi bi lii rôle am mu ne ci di yóbbu ay nit am garage di fay ay taxeem yooyu yëpp cag-cag bi amul plaque fayu dara ah, fu mu fekk ay client jël yóbbu taf romb taximaan bi fi mu gaare mu yóbbu fa juróomi voyage ci même place loolu itamit wax dëgg yàlla neexul bu concurrence amee rek kon am na ku leen seetaan ki leen seetaan nag mooy ki war a organiser mbir yi ki war a yeb yeb ki war a yóbbu bagage yóbbu bagage mais nañu rafetal xol yi te xam ni tali bi yaatu na bu xol yaatoo rek lépp ja nekk yàlla neexul mhm. ca rafetal xol yooyu laay dem ci euh, xalil tarkal euh, yow yaa ngi ci circulation bi diggante Mbour ak Dakar li ciy xew lépp gis nga ko li xew ba bakkan mhm. kenn du la ko wax tiit naa réew mi yëngu lan ngay wax askan wi ak ñi lay seetaan. jërëjëf bi comme euh, ni nga dooree rek jaal ki faatu. Euh, muñ loo ay bokkam ndaxte dañuy wax gannaaw euh, bu ndox tuuroo. bu ñu an baax waaye nañu rootiwaat. nañu xool lan moo ko waral ak lan moo tax la nouvelle génération gaaw ci jàppante xeex ak rayante wax nga ko léegi ci kaa Yaya jame il faut mm. que ñu taxaw seetlu lan moo ko waral. lan moo mm. leen animé lan moo xew. ba tax mbilim làcc rek te ñoom rek ñooy reyante ok léegi bi ñu demee ci actualité bi li xew parce que lu def waxulu lu ay di njàmbat dañuy wax ni Sénégal waratunoo bàyyi genn ganaar muy wéet ci wàllandoo di kës nu la neexee mm-hmm. bu fi taj si kese nekkee mm-hmm. clients yi dootuñu ko dolli bu fi càcc kese nekkee mm-hmm. clients yi dootuñu ko dolli il faut que concurrence am mais nag bu loyal saxaar lu mu gaaw gaaw mënta yóbbu muuram kàkkataar ku dund force mu Kaolack laa dëkk fa la njëkkee jue labitin ma wax ne képp kuy dëru di ci we am weccet war ngaa jox Kaolack àllarba waa Kaolack àllarba BP ak P50 ñun la parce que dem nañu ba ci biir ba léegi sax baaba ari yi wàll ci mooy trois roues yi mhm. diggante baaba arit yi ari yi ak sareet yi mhm. ñoom aussi ku ci dund di nga force muur kon où est problème mhm. kon donc nañu rafetal soow mi jaay ko ci marché bi cag cag li ko taxoon a jóg moo di sooy bu day am urgence war yónnee reer guddi wala am bagage bu mu yónnee woo kooku mu ñëw jël ko yóbbu mhm. léegi nag ñoom taximaani bi ñu demee ba ci biir saisir nañ fi euh, euh, weesuwul euh, préfet dem ne ko war nga ñoo organiser cag-cag yi parce que ñu ngi yàq suñu liggéey ñu ngi wàll ci loo xam ne loolu taxu leen woon jóg Kaolack ba fa problème mu deux roues ak taxi amee gouverneur xaw ma ban la tombé la mais da leen a woo diggante nit ak njabootam woo leen organiser leen invité leen ñu añandoo feetandoo kafandoo reyandoo mu ne leen nii na bokk tali bi te ci dund di nga force ñu jéem a waxtaan ba nga xam ne tey problème yooyu yëpp jeex na yooyu na mu fa jeexee yàlla na gën a jeexee Dakar papa. <laughs> commentaire la <laughs> ko ba pare. xam nga xam nga wujjee. Euh, wujjee euh, am na solo. mais xam nga tamit dafa am loo xamante ni bii euh, nit ñi dafa mel ni. Mhm. am na benn période boo xam ni taxi am na yoo xamante ni autorisé nañ ko ko am na ay. këyit yu muy am am na lu muy fay jakarta maan yi di tax di cag-cag mhm. bañuñu ko ñoom taxaw nañ wax ni bëgg nañ seen métier mi ñu organiser ko ñuy fay ay taxes di dugal mhm. mais man damaa xamul lan mooy problème mu mhm. Euh, ñi war a régler mbir moomu pour mbir mi tegu ci li nga xamante ni mooy siraatal mustaqim maanaam yëf yi tegu ci yoon lan mooy problème bi parce que ñii ñoom loolu lañ bëgg parce que ñoom dañoo sonn ci arrêté yi nga xam ne ñu ngi leen koy arrêté mm-hmm. ak tamit di daw ci tëli bi taximaan yi naan amuñu benn këyit ak mm-hmm. taximaan boobu ba amul këyit daf la koy war amuñu këyit mu leen neex la ñuy def et cetera mm-hmm. tey yëpp bi waruñoo yem ci biir ndakaaru gi loolu tamit aussi tamit wax dëgg fa yàlla euh, jaadu mhm. waaw cag-cag li ñu war a def mooy yóbbu bagage ah non mhm. non c'est que mhm. loolu mooy yoon tamit loolu mooy yoon c'est pas sûr dafa sax su amul casque wóor quand même c'est pas sûr xam nga même bu fekkee ne dañuy mérite mais dañuy bu ñu toogee ci télé bi tamit waxuñu tamit lu neex nit ñi rek mais dañu wax loo xamante ni bi euh, lu ñu jàpp ne lii moo tegu ci yoon jàpp naa ni man cag-cag baax na lool ci dëkk bi parce que léeg-léeg nga soxla dara dangay ngay woo nit ki rek mu indil la ko taf-taf mhm. loolu lu baax la bu doon taxi du mën a ne léeg-léeg nga gis nit ñi am ay difficultés yoo xamante ni cag-cag yi ñu ngi régler problème yi donc nag comme ñu ngi régler problème yi te ña même ñi ci kaw ñu ngi leen di régler seen i problème mhm. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu amee yenn yi taf-taf la ñuy woo cag-cag mu régler ko mhm. donc xam nañ ñi lii lu am njariñ la tey jeunes yu bari ñu ngi ciy gis seen bopp ñu ngi liggéey donc waruñu tëb tëb comme li fi gouverneur defoon ñu ne bon interdit nañ ki du mbir mi war tëddee noonu. war nañ xool ni xale yii kat dañoo ñàkk liggéey parce que réew mi dafa ñàkk liggéey nag ba nit ñi di jël gaal di wutal yeneen dëkk. bu ñu demee ba xale yi ku ci am sa benn trois cent mille trois cent cinquante mille nga mën a yor sa entreprise bopp. Mm-hmm. di mën a ñafe di am loo yóbbu sa kër di ci yor sa njaboot. loolu war nañu xool lii kat nu nuñ leen ko euh, tegalee ci yoon. ba nga xamante ni bu ñu génnee du lu ñu liggéey rek alkaati bi lekk. Mm-hmm. lekk ko wala ñu ne kii bi lekk na ko parce que parensaay keroog dafa am benn waaye boo xamante ni bi indil ma benn bagage di dem la ma ko fayoon moom la fayaat finalement amul njëriñ quoi xaw comprendre mhm. maanaam la lañ ko fayoon moom la moom la jot moom la moom lañ ko jàpp mu joxe waat léegi ah, ah, léegi moom dafa course ci perte <laughs> comprendre xam nga yu mel noonu dafa metti te bu ñu leen wutaloon ay papier yu jaar yoon ñuy fay ay taxes normalement mhm. xaalis boobu danay dugg ci keesu ate état bi normalement ba noppi tey taxe yi dootuñu leen xoolee bëtu yéen ñii amu leen droit jaar fii ak amu leen droit lii ak amu leen droit laa la xew fële nag loolu metti na ki nga xam ne ñàkk na ci bakkanam mbir la moo xamante ne bii mbir mu metti la nit ñi tamit nañuy ànd ak day mbalañ mbag nga rey nit loolu musiba la nañuy ànd ak teey xam nga nit ki euh, nit day day dafa war a wuteeg bàyyi ma quoi nit nit la quoi comprendre parce que li Yaya Jammeh loolu da ko réussir ku rey nit ñu rey la c'est dafa am yoo xamante ni bi yàlla moo ñu gën a xam doomu aadama mm-hmm. ku rey nit ñu rey la reykatu nit warta dem di xatal benn kasu ah yaa ngi dégg nag dem ca armeel ya nam def kële ñu def ko ko mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg mm-hmm. donc tamit nañ ñu baal la waaw ah, quand te par exemple yi da ngay gis koo xam ni day wax ne jullit laa toog ci télé ñu ne ko ku rey ni ñu naan non c'est-à-dire il faut que ñu jéem a xool parce que yooyu aussi du solution weddi nga yàlla te yëngoo ko gëmatoo mambam quand même uh-huh. macha allah waaw dëgg neexul foofu laay daal di jaare tëjee nak ndax ku rey nit dañ laa war a rey dañoo war a dund charia mm-hmm. parce que ay jullit lañ aussi tamit charia bi dañ ko war a dund pour sàcc ñu dagg sa loxo boo sàccaat dañu dagg ba ca des boo sàccaat dañu dagg sa tànk boo ca dagg ba ca des loolu la charia wax nañ ko dund ah, mais nga rey nit ba pare suba waa <laughs> kay suba ñu ñu ñu ñu gracier la fii ah tamit wala ay branlo ay link di la jàppale aussi tamit nañ defaraat suñu toogaay parce que tamit ki ñuy rey tamit moom dafa am nday am waajur amaloon leen njëriñ lool itam mais lépp rek tamit nañ ko dolloo ci xol bu rafet ak muñalante ak yërëmante ak bëggante mm-hmm. kenn ku ci nekk doo lekk lu dul sa keñaan fonkul muur yàllaay maye kenn ku ci nekk rek la nga war a jël ak li sa ñaq ala àll aal da nga koy am danga koy jël donc na rafet nañu bàyyee ku jegu métti gi soxorante bi iñaante bi yàqante bi gaaw a mer gaaw a dóor man damay dem ba tiit di wax ne lan la ñuy nàmpalee sax léegi dama koo xamatul parce que yenn moo tax di nàmpal sa doom aussi daal tamit ma ciy ñëwaat di leen ci soññaat dafa baax parce que tamit meew mu jot nga jox sa doom sadik gi ci kër gi koñ yeeg kër yeeg mbedd yi ñaaw na ak bon yi ñuy utiliser parfois tamit nañuy lu sut bu ñuy dawal parce que yenn melokaani tamit nga da ngay agressif loolu la laal nga tàkku la laal nga mer donc ñu ngi koy ñaawlu lii lañ leen indiloon seen rubrique ku ci gi euh, doy na waar métti na ñu ngi jaalewaat ki dem yàlla xaare ko àjjana di baalu Sénégal yépp àq di wax ñu ci des rek tamit ñu muñalante bàyyi li duuf ci nag bi xaju ci cin li mhm. waaye man Senghor sañ naa ne jël li ma ci neex ak li ma ci tànn daal di ko ci rëtëmbal mhm. ndax nee naa la koy waare ku ne war geen doo bëri sànkat te a ñoo neex bërëb bis kon doxalal eh. ba beneen dimanche <laughs> di nuyu sama sang bi Kébé jóge Aly Ndiakhate Sane Mbaye dugg Kaolack nuyu ñëpp parcelle ga ma yeewu sama dëkkandoo yi sama xarit yi mhm. fan sa la bam bi nuyu naa ñëpp maa ngi leen di soolal voilà jërëjëf mam bam bi amati na solo ci kujëgu amati solo googu nga ñëwati euh, macha allah euh, donc dañuy dem régie daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di sama rakk ci Diouf ñoxu baay ci masala mu ànd ceeg oustaz Souleymane Diaw. léegi maa ngi nii xaw fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii fu may génn waat ma mën na ñibbi waat àdduna ma nax naf si yow ma buum ci baat.